Assalamualaikum man la yama tiktok xam ngeen ma saf xalé saf magi saf djegi saf djegi mari saf xalé yu ndaw saf gori wa waaw ngi nuyu baax baax ma ma ngi koor yama ak wéru koor bi Sahel Network TV wow ñu nek ci télé yu gën si télé yi nak xam sen liggéey bu baax baax waaw ñu non ni wéru koor bi bañ ngeen mer len di ñaan yàlla ñu yàlla nangul suñu or nangul suñu jule nangul suñu ñaan ba lañu suñu ñaan ma am si wéru wéru koor bi ma ma mënse wusin tamit ah suma sali boy maa ko jël ci nak suma sali boy maa ko jël ñu suma sali boy de wa max Sahel Network TV ñi ngi wor dekk bi yépp jëm jël suñu Fatou Ba Baro ñi ngi ñëw ak sa Essa Fall ñi ngi ñëw Amad Ba ñi ngi ñëw Halifa Sala ñi ngi ñëw Mariam Sok ñi ngi ñëw Rahim Malik Lo ñi ngi ñëw Talib Ben Souda ñi ngi ñëw bakari Badji ñi ngi ñëw ah Loya Seno Dabo ñi ngi ñëw Mama Kane ñi ngi ñëw just to tunim to am taf Ah, Tafa Ndiaye ñi ngee ñëw Fatou Network Fatou Show ñi ngee ñëw ah yéen ñu ne naa ñi ngee ñëw jël si suñu salibo ànd si ñi nga xam ne ñooy Sahel Network TV lañ jaajëfal bu baax a baax si weer ko bu ñu doon toppa leen ne nag li ci kanam rawul bët lii dañ leen doon musal nii rek ci kanam rek ci kanam jërë ngeen jëf waaye <laughs> jërë ngeen thank you